démb euh, gis ngeen waa BBC def benn reportage si doomu Mansour fay parce que reportage bi ñu ko defee ba léegi mentionné wuñu benn yoon ni c'est la fille de Mansour fay te ñépp xam ni Sénégal Sénégal fii ñépp xam ni Sénégal mënoo fi am yenn âge yi bëgg am bëgg euh, euh, réussir comme boy bi te nekkoo ci yenn famille yi Sénégal mënoo fi juddu 94 1994 7 février 94 mënoo ko juddu fii Sénégal di am nag yi nga xamante ni benn bu ci nekk mi ngi jar 11 millions nga am ci ay centaine de vaches centaine de nag la. du cinquante yi mu leen wax de ay ay centaine la ci am Sénégal munoo fi juddu 7 février 1994 am lu nu mel ci société munoo fi juddu 7 février 1994 Sénégal di jënd kër à 100 millions francs CFA yu tojul bënu liquide. xam gars yi dafa mel nii ay dof la ñuy waxal am dafa mel ni ay dof la ñuy waxal si lan moo tax mu dem def ci reportage bi en fait lan moo tax lu toll nii xale bu ndaw am ko fii ci Sénégal benn fii bu jur 7 fév 7 février 1994 nekk xale bu jigéen bu ëpp xaalis ci Afrique ouest benn journaliste Sénégal xamu ko ba ay tubaab bi jógee ca Angleterre ñëw di def ay reportage fii c'est parce que ngeen xam ne am na lu ci xew lu nekk ci suuf. la moo tax reportage bi accordé wuñ ko benn presse bu nekk fii ci Sénégal parce que xam nañ ni presse Sénégal yi dañoo mën a wax te Kër Mansour fay ku fa dugg danga nga naan nekkoo Afrique je dis bien nekkoo Afrique. BBC moo def reportage bi ñëw bi mu ñëwee dégg ngeen bu baax li xale bu wax dama jàng ba 2012 laa am bac ñu yóbbu ma États-Unis mais 2012 nga am bac rek ñu yóbbu la États-Unis parce que yow waroon xam ni am na lu nekk ci suuf. gars ñu baal ma si woote bi 2012 nga am Badara ñu yóbbu la États-Unis war nañ xam ne am na lu nekk suuf parce que 2012 la ñu doog a ñëw au pouvoir xale bi ma Marème Faye Sall mooy tàntam Mansour Faye ministre euh, euh, des infrastructures nga xam ne lépp lu fi mës a jaar ci ministère bu am doole moom lañ ko ko jox mooy bàyyi. kan mooy ay ndijaayam ay Adama Faye ay Iba Faye ñooñu ñooy ndijaayam nga am bac en 2012 ñu yóbbu la États-Unis en nga dem defi ci sa master nee nga master nga am si ay gestion wa comme ay ay kii finance nga pare foofu noonu ñu ñibbi si Sénégal nga ànd ak sa papa benn fois France après nga ne nga fekk boobu sa papa amoon na ay dix nag nga ne ko waa papa lii de neex na ma mun la aywa nañ investir si ça c'est faux prêt non nga prêt société bi Mansour Faye moo ko moom au fait xaalis bi nga xamante ni fa mu jaar xaalis bi nga xamante ni mi nga doon jël ci ndoddu askan wi nga xamante ni. ñooy fay ay époque ay taxes xaalis boobu la jël ubbeeku ay société am parce que avant ñëpp xam nañ ni Mansour Faye lam yoroon ak lam yoru woon avant amul woon kër fii à Saint-Louis avant yu nekk ci pouvoir bi Mansour Faye amu fi kër bi nekkee ci pouvoir bi si la dem xal nga di kër fa la ca Bango dëkk fa kër yi boo fa duggee waxuma la sax xaj yi la lekk xaj yi nag nag xam nga nag. war lay di pëli di jaay la xaj yi di dundee waxuma la au delà de mais nag ya fa nekk ndoxu kireen la ñuy naan moment boobu à côté ñoom dëkkal am amuñu ndox te moment bi muy dëkk foofu ñooñu Plex depuis mosuñu xalaat am ndox ci àdduna bi Mansour fay ñëwee la xotti benn tuyau bu dugg directement tuyau boobu wax ko doon évaluer kenn xam lu mu toll ci xaalis boobu moo nekk ministre de l'hydraulique si la zone boobu doog am ndox ñu ne déedéewaay. doom ji oto yi muy dawal fii ci Saint-Louis oto yi muy dawal benn oto bi rek benn oto bi laa la wax nii mënoon na financer cinquante jeunes ñu am liggéey te boo demee ay dizaine de voitures ñoom ñoo nekk foofu noonu Kër Ma en fait dama ne la Kër Mansour Faye biir Bango amul ci Afrique Ouest xam nga kër kii ngeen gis euh, démb euh, euh, kii Baye Fall bi bi mu demee seeti ji Matar ba kër Matar ba ngeen gis di joow di di di jooy mais bu ngeen demee ba gis Kër Mansour fay amul ci Afrique.